wax yal nay njiglaayam da ñaanal borom kërëm yalla yàggal ko fi amin yàggal taxawaayam mu yàggal mu yàggal leen a teete di yàgga teete jarbaatam yeeg njabootam gii ba muy sukka karaam ban koy weere ka wéri man loolu la laa lu may wax mënuma ma leena fay samay mag yu bax na di samay séegi te mënu ma leena fay ndax dañ ñoo jàpp démb ba tay di teggu mhm. yalla yalla japp leen taxaw leen taxaw mboolem bi damaa la ga laaj waaye man <laughs> damaa la ga laaj ba muy xale ba suñu yoon tey ñuy ànd te dara mu sa ñaaw ndey chaque jour damay bakkaar di ma woo di waxtaan ak man di diisoo man barke suñu tubaab lañ su loolu nekkoon keneen nag mënoon naa ñëw ko wut waxtaan ak ma koy ñaanal nag kaaraan balaa ràpp yàlla si taawoo Seydina Muhammad xam naa mu siyaare ji woon barke yonent tekki sëñ Fallou teg ci maam Diarra Bousso maa ngi ko koy ñaanal yàlla bu gënee si moom yàlla na ko yàlla sëñ Saliou Mbacké defal barke Seydina Mouhamed sant naa ko bu baax a baax meroo ma ko benn yoon ndax ndey mënoon naa ñëw daal ko rek changé ma waaye defu ko de chaque jour mi ngi déggante ma di waxtaan ma di gisoo ma aw ma fayam nag yàlla rek laa koy bàyyee yàlla ma fay yàlla na ma ko yàlla fayal barke sëñ Saliou ko dénkoon su ko maa ngi ñaan ci dooleel Serigne Fall mu jël aw samay fan topp ndax lay taase leer na ma man ba su ma wane ginnaaw dana yor sama njaboot ndax da koo da koo firndee ndax ngi nii yor leen bu sa camarade mi ba ci maam Xaadim mi ba ma ko ba ma ba ma ëmbee nekk hôpital mu ñëw toog bi ma digal nag te man xam naa ne man damaa sikk ndax man tay tay bu ma jotee woon nag léegi nit daal di xeex musta xeex musta xuloo sama bàyyi tëdd ca lalu oppitaan ne ma xuuma kan de waaye nday baasa ak yow bu ngeen mos a torox nday baasal moom nag jàppal ma ko ndax saa caat moo xam ne koo bëgg dëgg ni dana dem bay jamono ñëpp dinañ ko tiim bëgg koo gis mooy bis bi ñëw na moo tax démb tey ma toog di jooy mu tëdd ca lalu oppitaan ba fëdaluma ko ko nag mu dana dem bay jamono dana toll foo xam ne ñëpp ko koy gis te booba sama baay mi ngi ci sukuraat moo tax tey ba mu ñëwee ñëpp di ko séntu démb ci guddi ci suba ma ji woon doo torof mu barke alxuraan wóor na suñu Tuubaa seexlu ko lépp seexlu lépp lay seexlu barke alxuraan bu dee kon bokk mi ndey ak baay loo ko ñaanal mu tax ndey baase su ko suñu borom naree gàttalu fanam maa ngi ñaan ci dooleel sëñ Fall mu jël aw samay fan topp ndax